jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15 jotee jàpp 16h du Diawa jàll moo nekk ci wàllu machine bi. Euh, mbokk yi nag tey ñu dellu am mbégte daal di invité président ay Aymérou Gningue honorable député moom moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar waaye tamit moom mooy maire bu Médina Médina Ndakar président ñoo ngi lay nuyu. waaw Abdou Khadir Jilani maa ngi lay fay di kontaan trop ci sa invitation bi di nuyu auditeurs u Rewmi FM yëpp di à travers vous may nuyu waa Sénégal ñëpp képp ku ma dégg tey ci direct bi wala képp koo xamee ni itam danga ko dégluwaat maa ngi lay nuyu ci réseaux sociaux ak foo ko déglu euh, président Aymérou Gningue euh, yow yaa jiite groupe parlementaire Benno Yaakaar yow yaay maire bu Mérina Ndakaar euh, nga nekkoon fa maire élection locale yi passé euh, askan wi nga xam ne ñoo fa yeewoo falaat la euh, fal googu ñu la falaat ban njàngat nga ci am. waaw jërëjëf Abdou Khadre d'abord buñ boo nekkee ci say nawle di xëccoo dara ñu jox la ko. Hmm. li nga war a jëkkee booy wax ci ñoom mooy nga jël ngërëm delloo ndax euh, askan wi ci boppam ñoo daje am yaakaar yu ñu am ci man pour ma jiite leen ci gox bi te jëkkul tey parce que 2009 laa fa jëkk falu président conseil rural 2014 ñu indi réforme bi ñu fal ma maire ñu ñëw 2022 ñu tollantiwaat ko kon maa ngi ci sama ñetteelu mandat euh, euh, soo gisee nag ma wax ni naa jiital askan yi mooy fal yi ñuy fal yépp ci àdduna falu maire moo ci dàq ndax falu meer say mbokk rek la koy jox ñooy daje jox la say dëkkandoo ak say mbokk ak say jegeñaale ak say dendandoo ñooñu rek ñooy xëy parce que da ngeen dëkk ñu xam la ràññee bu baax xamoon sa démb xam sa tey yaakaar sa ëllëg ñooñu ñoo lay jox mandat boobu loolu moo tax maa ngi ciy sant yàlla bu baax di sant képp koo xamee ni yaa ngi dëkk mbiri ndax mais sant bi dama ko yóbbu ba ki nga xamee ni woteelu ma sax ma santaale ko ndax wujje dafa baax parce que day tax yokk góorgóorlu ndax itam ñun ñëpp mënuñu xëy rek am benn jëmukaay am benn bopp boo xam ne ni fa la ñun ñëpp fa la jëm benn gis-gis il faut gis-gis yi waaye nag bu ñu demee ba nga xamee nag yàlla mi nga xamee ni mooy joxe jaar na ci doomu aadama yi ba ñu jox la yow da nga war a xam ni tey ñëpp nga jaboote kon nag ki ma fal ak ki ma falul ñëpp laa wëlbatikuwaat jaboote meri ndaxar ci juróomi at yi ci kattanu yàlla léegi seeni jafe-jafe Euh, lan nga jàpp ne moo nekkoon jafe-jafe euh, Mérina Ndakaar lan nga si jot a saafara si seeni i jafe-jafe hmm. ak lan moo de lan nga jàpp ne moo des si seeni i jafe-jafe waaw euh, olof yi dañuy wax nii bu yoon jeexul waxusul di jeex gis nga jafe-jafe àll bi du ma wax sax Mérina Ndakaar mais jafe-jafe Kajoor en général ci ñeenti ponk rek nga koy nga koy tënk hmm. nit ki bu juddoo li muy gën a soxla mooy mu mën a dund dund bi nag li nga xamee ni moo koy téye ba dund bi mën a lew mën a baax mooy mu am wér yaram wér yaram boobu nag dafa nekk lu am solo loo xamee ni nii bëgg-bëggu askan wi la foo mën a dem nit ñaa ngi koy wut bu ko defee itam ñu am bërëb yoo xam ne dañ ciy jàng xam-xam su ma waxee nag jàng xam-xam génnewuma dara au contraire dama jiital sax dara parce que dama jàpp ni nit ñi wuti xam-xam bala nga am dañ lay yar d'abord te nit soo ko yarul ci diine yaroo ko ba mu xam diggam ak boroomam hmm. xam itam ak yi am ci diggam ak moroomam ñaare dafay incomplet hmm. muy ñaar ñetteel bi dafay jën rek ci wàllu koom-koom hmm. mooy naka la ñuy def ba nit ki fa mu dëkk lam soxla mu mën ko am ku nekk sañ bëggoon nga fa nga dëkk boo fa nekkee ndox fekk la fa ku nekk fa nga dëkk ci li xew tey te président Macky Sall indi ko fii muy accès universel à l'électricité à l'énergie sax moom la wax bëgg nga fa nga nekk wax dëgg yàlla nga am courant am jumtukaay yoo xam ne di nga mën a bokk ci nit ñi parce que boo xoolee bu soriwul rek bi ñuy 1960 xam nga 1960 ci mu réew du dara parce que ñaata at la 1960 ak léegi juróom benn fukki at la yu yu yu tegal tuuti mais boo ko xoolee nga xool bu njëkk ba nit ñi dañ daan jóge fu sori pour di toxu parce que dañ daan gis benn làmp buy nit rek ñu ne man damay jóge ci àll bi pour dem ndakaaru wala ma dem Thiès wala ma dem foo xamee am na ay lamp te làmp yooyu wax dëgg yàlla jombul kenn hmm. président nag ñëw indi politique bu mel noonu ba tey boo demee ci dëkku àll yi foofu mën a dem nit ñi seen jooy benn la. naka laay amee courant. loolu seen bëgg-bëgg la mais itam. ku am courant am ndox bu sell wax naa ko léegi. moom laa jëkkee ndox. parce que ndox moo jiitu courant. Mm-hmm. xanaa xamuloo ni. bu ndox amul diine sax du mën a. waaw président nag euh, yéen pouvoir bi dañ leen di faral di tuumaal naa leen équité amul ndax euh, euh, monde rural bi dañuy am problème mu ndox lu bare bari ndox mu sell am problème mu courant am problème mu santé. Hmm. bu paasee mairie na Ndakaar li ngeen si def ci àll bi est-ce que jàpp ngeen ne lu am solo la. ah oui xam nga Abdou Khadre nag su fekkee dañuy wax rek te dañuy waxtaan te bu ñuy waxtaan dañu koy wutal. ay ponk yoo xam ne dañ koy teg mhm. dangay xam ni Sénégal mooy ci réewu Afrique yi nga xamee ni tey dañu am nekk ci wàllu développement mhm. di wuti di aspirer pour nekk réew moo xam ne dañ naan daal dafay jëm ci koom-koomam fitti mhm. bokk na ci réew yi nga xam ne dañu ne accès bi nga xamee ni moom la ñu am ci ndox nekk na quatre-vingt-quinze pour Euh, c'est vrai que 5 pour cent yooyu sax nag metti na. parce que il faut arriver à 100 pour cent waaye xam nga nit ñi dañuy yokku dëkk yi di yokk ainsi de suite. mais gis taux taux boobu juróom-ñeent téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom. Hmm. taux bu am a am solo la bu ko fàtte. Hmm. te li ñu tànnoon tey Sénégal fii di fi def forum mondial de l'eau. Hmm. da nga defee loolu dañoo xeexee rek mu nekk. hasard mooy lu ñëw rek daal di nekk déedéet dañuy xool tam réew ma jéego yi mu def ci wàll woowu léegi nag ci wàllu courant itam euh, da ngay xool fi ñu jóge wax naa la ko léegi da daan fekk réew mi bu njëkk ba dañu naan capital yi rek ñoo daan am courant tey bu ñu demee bay am taux boo xamee ni pratiquement egg na soixante pour cent passé na ko mm-hmm. nga xam ne ni te président wax ni man dama am programme fekk ñu ko fenn ñoo ngi ko fekk ci moins de trente pour cent dañoo fekk loo xam ne ni def nañ ko ci ñeent fukki at ci fukki at ak ñaar président fexe ba loola mu doubler ko ba tripler ko xam nga loolu tam dafa am solo parce que bu ñuy wax rek dañ koy wax xam nga tey ngay dem ci réewu euh, àll sax réewu kaw yi man fa laa dëkk parce que man euh, joxuma ko lu euh, parce que nit ñu boo nee réewu kaw man kaw kaw fiir la tam mm. moom laa def sama bopp mm. mais boo demee ci réewu kaw yi ñëpp naan dama bëgg am courant mais fukki at ci ginnaaw boo demaan ci réew yi kenn du la ko laaj dafa xew mbir nag su xewee ki ko xewal da nga koy jaajëfal parce que ki ko xewal ba ñëpp di ko laaj da nga koy jaajëfal te kooku moo taxaw nii ni dama bëgg bu ñu demee 2025 te 2025 soretul mooy fii ak ñaari at ñetti at amul benn dëkk boo xawee di nga nekk ci Sénégal te du ma fa yóbbu courant est-ce que 2030 déggoon naa fi ngeen wax fi 2035 est-ce que 2035 jàpp nga ne 400 euh, da ngeen fa am euh, da ngeen fa àgg lu jëm ci wàllum électrification ci ci Sénégal bi yëpp non du deux cinq deux mille vingt cinq li ñu wax ñun pour que Sénégal jël fu nit nekk. am courant am courant deux mille vingt cinq la. kooku kooku promesse wu les cest loolu lu président la république dig askanu Sénégal la. te ku gis ni ñuy doxe ak jéego yi ñu def ak fi ñu jóge ak fi ñu egg si tey. wax dëgg yàlla boo génnoon tey de micro trottoir dem ci àll bi di nga gis ñu bëri ñun la ah ñun de li mu wax yaakaar nañ ko ndax dëkk sàngam de léegi courant baa nga fa ñoo ngi gis fiil yi ñoo ngi gis lamp yi bu tàkkee kon gëm nañu ni bu ëllëgee dina existé. d'accord léegi euh, président euh, Aymérou ngi ba léegi euh, lu jëm ci wàllum électrification def ngeen si jéego lu jëm ci wàllum ndox aussi def ngeen si jéego mais lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram gi. Euh, est-ce que tey monde rural bi euh, gis nañ ci seen bopp gis nañ ci grandes villes yi. Mm. ngeen def fa ay hôpitaux yoo xamante ni plus de trente milliards. waaye ay poste de santé ay maternité ci monde rural loolu euh, lan ngeen ci def. waaw xam nga système wu wér-gu-yaram ci Sénégal dafa nekk système boo xamee ni dañu amoon ay kàngam yu fi nekkoon dinaa ci tudd kenn muy président Mamadou Diop. Mamadou Diop bi nekkoon maire de Dakar. Mhm. Euh, euh, nekkoon ministre de la santé. Mhm. moo jëkk dugal li ñuy tuddee organisation pyramidale bu santé mu ne santé daal boo ko bëggee am dangay fexe ba nit ki fi mu nekk. Mhm. nga wutal ko fa lu koy faj. loolu moo indi woon case de santé. mu ne boo jógee ci case de santé yi. wut ay poste de santé. su ko defee ñu koy def ci arrondissement yi booba sax daawuñu wax communes yi parce que communalisation intégrale xam nga président Macky Sall ko fii di mu ne su ko defee ñu def ay centre de santé ci dëkk yu mag yi fu mel ni ngaay boo doy wax ci Kajoor ba indi ñëw ci ay opito so loolu mooy euh, organisation bu mu taxaw la gis na tey fii may wax ak yow boo demee Mérina Dakhar am na fukki case de santé ak ñett ci commune bi bu fekkee ni damay wàññi poste de santé yi. Mm-hmm. am nañu fii may wax yow juróom benni poste de santé. est-ce am na matériel bu doy. waaw defal ndànk defal ndànk rek xam nga affaire bi euh, xadar bu ñu ko bëggee yàkkamti yàkkamti rek boo ma tayloo rek daal wax rek. d'accord ñu def poste de santé yi ay nit nekk fa ñu jox leen jël leen ñuy faj nit ñi ñu am centre de santé boo xam ne ni ngi ngaay am hôpital de niveau un boo xamee mi ngi tiwaawoon mais noonu la ñuy saytoo am réew léegi nag yaa ngi laaj ndax matériel gis nga booy wax lu doy lu doy amul fen même boo demoon tey biir France nga dem ci hôpital bi gën a mag di nga fekk foofu nit ñoo xam ne dañu lay wax ni woy mais suñu matériel bi bu ko yokkoon hmm. li am solo mooy est li ñu am ci budget muy alal bi nga xamee moom la ñuy voté fii ci assemblée nationale. ñoo ngi jël li nga xamee ni nii moo war a dem ci santé bi ñu dugal ko ci biir santé bi. te Sénégal saa bu nattee budget bi jàppal ni lu mat vingt pour cent ci budget bi mi ngi ko delloowaat ci wérgu yaram boo seetee li muy dugalaat ci njàng bi nga seet li muy dugal ci wérgu yaram dugal ko ci njàng bi. Hmm. at bu nekk da ngay jàpp ne budget Sénégal yëpp boo ko jëlee. Hmm. quarante pour cent yi foofu lañ ko dugal. kon nag réew soo koy téye da ngay seet li nga xamee ni mooy njariñu askan wi li nga xamee moom lañuy ñuy jooy te bu ñu ko deful te sama njël benn waxtaan dama la wax ni réew ñaara ko yor xale day juddu nga yar ko wutal ko fu mu jànge xale day juddu comme feebar wér ak feebar ñoo ànd nga fexe bu feebaree ñu teel ko jël en charge di ko faj xale day juddu bu fekkee ni dem na ba yàgg jàngam génn parce que mu war a dem ci daara yu mag ya war a mën a jàng gis nga mu njëkk ba mm-hmm. képp ku fi ma sa jàng rek boo ak foo mën a dëkk ci région de Thiès ba ñetti lycée rek a feer mm-hmm. dañ naan la Malick Sy wala nga ñëw Dakar dem Blaise Diagne wala lycée Van Vollenhoven wala lycée de la Fosse wala nga dem Ndar lycée Charles de mm. tey lycée yaa ngi fépp xale bi mën na xale bi. mën na juddoo ci ci ci dëkk bu mel ni na Ndaxaar. jàng fa école primaire. Hmm. jàng fa CM. dafa fa lycée ba am baccalauréat te du génn kër ndey loolu dafa am solo. dafa am solo. bu ñu bëggee tabax réew mi waaw ci encadrement parce que xam nga xale. bu fekkee ni dafay dem di dëkki feneen. te fa muy dëkki xañ na ñooña. environnement bokkul environnement ba bokkul mën na am jafe-jafe. ci ni muy mën a jànge loolu nag dañ ci def ay jéego yu am a am solo. yoo xamee ni gox-goxaat yi ñoom ñoo ko gën a yëg ñëpp. parce que gis nga président la république Macky Sall du li ma ànd ak moom de. Euh, ndax bind na ko wax na ko dafa nekk nit koo xame ni ci réew mi la dëkk xam nga boo dëkkee ci réew am foo jaar parce que xëyoo xëy rek. Hmm. ñu daal di am sa bàyyi bàyyi la loo doon nga defee ni yow buur nga. Hmm. nga jaar ci ay jafe-jafe. Hmm. di nga yëg ci réew ma loo xamee ni. keneen ku ko dundul du ko yëg. yàlla may na ko loolu ba. lenn mooy bëgg bëggam mooy fexe ba Sénégalais fu mu mën a nekk. di gis boppam. ci réew mi macha allah loolu mooy politique d'équité. d'accord mais mais mais monsieur maire tey euh, benn question ci mairie na mairie na Dakar tey deuxième mandat bi nag. troisième euh, troisième mandat bi. tey lan nga ñu mën a wax bëggul ñu nag euh, nga wax ñu deuxième mandat troisième mandat nga nañu lii laa fu bëgg a yokk wala lii laa fa bëgg a def. waaw xam nga damay bañ nga naan ma deuxième mandat. parce que man troisième mandat la troisième ah. mais nag deuxième mandat la ci euh, commune communalisation intégrale donc léegi li nga xamee ni moom laa yéene xam nga man sama sama slogan bi may def campagne lan laa ko tuddee woon mottali yéene yi mottali yéene mottali yéene yi parce que su ma yéene ci Kajoor dafa rëy te lu ma def rek ma gis ni war naa yokk mm-hmm. kon man tey sama premier programme mooy dama bëgg yokk forage yu ndox yi. ba waa Kajoor. di bay noor di bay. waaw. bay noor ak nawet pour ñuy bay noor ak loolu mooy sama première préoccupation. Mm-hmm. fexe ba programme bi nga xam ne moom la président doxal. muy programme euh, énergie universelle accès universel à l'énergie. Mm-hmm. ma fexe ba mu mat ci ñoom. Mm-hmm. mooy dëkk mu nekk yàlla dimbali ma ma def courant. loolu nag programme président la man su ma ko tiitaroo rek. jaaduwul. Ah, parce que déet man du ma ko tiitaroo. mais bëri na ñu koy pré président ko moom. waaw mais waaw waaw président ko moom. waaw est ce que nangu nga ne président moom loolu ku ko tiitaroo da ngaa tiitaroo loo moomul. Ah, man mosuma ko tiitaroo. Ah. beneen bi ci des. mooy yoon yi. dañu kajoor suuf sa xam nga kàdd ak joor la. Mhm. suuf sa dafa nooyi. Mhm. ñu war fa def nag ay yoon. Mhm. yoon yooyu nag. dama wax ci bi may def campagne ni dama bëgg lu bon bon ma indi quarante cinq kilomètres de piste dugal ko ci biir su ko defee nit ñi seen dem ak seen dikk mhm. di gën a yomb mais nag surtout dafa am leneen lu mu lal li mu lal mooy koom-koom parce que boo bayee di ko yóbbu pour di ko jaay su fekkee ni dama bëgg indi ndox mi pour nit ñi di bay ay lujum mhm. di bay nawet ak noor mhm. mais bu ñu bayee ba pare war nañu am yoon ñu jaar pour mën ko jaay mhm. loolu daf ci am solo beneen aspect bi mu am yoon yi mooy problème sécurité yéen gis ngeen ni coow li am ci réew mi ci wàllu sàccum jur gi sa sàmba buy dox di dem làmp yi dina am lu mu faj mais yoon yi itam dafay am lu mu faj parce que day tax gendarme yi ak ñi nga xamee ñooy force de défense et de sécurité yi bu ñuy def ay rond di mën a dugg ci dëkk yi di ko xool loolu yëpp nag mooy programme yi nga xam xamee dama ko nësal mais surtout surtout jàppale ndaw ñi ci seen formation parce que man dama defoon benn forum bu mag boo xamee dama ko tuddee forum de l'emploi des jeunes hmm. formation ah, waaw ma def ko ci biir Ndakaar ñu liggéey ko ay ministre ñëw fa ñu waxtaan ba fi mu nekk nii recensé nañu xale yëpp lii mooy seen formation lii formation lañ leen war a dugal yooyu nag dama bëgg sukkandiku ci programme bi nga xamee moom la président def muy programme xëyu ndaw ñi ba moom ma jox leen ay jumtukaay ci wàllu jàng yoo xam ni su ëllëgee dinañu mën a dem ku nekk wuti loo liggéey waxuma liggéeyu bureau mais liggéey boo xamee parce que nit su amee métier la am na li nga xamee moo ëpp solo parce que métier boobu dina ko mën a dund dundal bu fekkee mécanicien la itam mu mën a def mécanique baax na bu dee soudeur la mu mën a def soudeur baax na bu dee itam dafa jàng am ay diplôme ñu jàppale ko ba mu mën a dugg ci ay concours mën a génn pour mën a jariñu réewam parce que xale yi itam dañu am wàllu wu rëy beneen bi ci des mooy jàppale jigéen ñi jigéen ñi dañu nekk ci kër yi mais bu ñu leen bàyyee ci kër yi rek musiba la parce que jigéen ñi dañu am solo lool ci askan bi d'ailleurs ñoo ëpp góor ñi te itam dañu farlu moo tax man dugal naa fa déjà crédit boo xam mat na cent millions li ma lay wax itam ñëpp ak may dégg ci biir mairie Ndaxaar hmm. te dama bëgg cent millions yi ma fexe ba multiplier ko par trois su ko defee jigéen ñi am lu ñuy jumtukaay yoo xam ne dañ ci mën a liggéey di ci daan seen doole di ci dimbali seen i jëkkër mais surtout di ci dimbalee tout tànk yi parce que ay ndaw lañu te ndaw wax dëgg yàlla képp ko dimbale ci mu bañ a xiif bu bëggee kaye nga jëndal ko ko bu bëggee àlluwa nga jëndal ko ko hmm. yaa ko dimbale parce que yaay def ci moom mu nekk mag moo xam ne bu ëllëgee dina mën a jëriñ euh, jërëjëf euh, euh, monsieur le maire tey monsieur le maire laay wax ndax fi ñu génnee moom monsieur le maire laay ay président Aymérou Gningue wax nga président Macky Sall li mu def ci monde rural bi Euh, euh, ci Sénégal tamit gis nañ ne def na ay infrastructure def na euh, terre berte bi def na li nga xam ne mooy ab stade Dakar Arena def na stade Maître Abdoulaye Wade def na stade pour pour ñi nga xam ne ñooy mbër yi def na nag infrastructure yooyu def na ay hôpitaux def na ay université waaye nag président il faut que ñu nangu tamit ne fi mu ne nii dund gi dafa cher dëkk bi dafa metti si ñenn ñi bien vrai que am na infrastructure yoo xam ne taxawal na ko. dëgg la dëgg xam nga lu nekk rek infrastructure mooy li nga xamee ni su may def budget ci ci ci déedéet fële ca Kajoor. Mhm. dama leen di wax dafa am budget investissement ak budget euh, fonctionnement dama leen di wax ni budget investissement mooy li ñuy jëmmal nga xame ni kenn du ko lekk mu rees. Ah, budget fonctionnement nag mooy li nga xamee boo ko lekkee day res investissement dafa am solo cim réew mhm. gis nga parfois nga dox ba yàgg dégg benn waaye naan la waaw mais tali yi ñu def mais tali yi mais tali yi waa <laughs> boo ci jaarul mhm. dem doxi sa soxla xam nga euh, Jeylaani yi euh, xam maa ngi fi bëgg a yàgg tuuti dama daan jóge Kajoor ngi gis mhm. di ñëw Dakar su ma jógee Kajoor temps bi may def pour jógee Kajoor ba bi may ñëw Bargny bu dee ñaari waxtu la diggante bari Bargny ak suma kër Dakar dinaa fi def ñeenti waxtu tey su ma jógee Kajoor ñëw ba dugg ci autoroute bi damay woo sama waa kër ni leen maa ngi ci autoroute dinaa ñëw dans trente minutes waa gain temps boobu. Mhm. du koom-koom koom-koom la. gain de temps bi dafa am benn xale bu ma ñëw seet si fii ci assemblée national menuisier la euh, mën naa sax tudd turam mi ngi tudd Modou Fall hmm. am benn atelier ca Tëngéej menuisier la ma jox ko rendez-vous parce que dafa am lu ma ko doon defarloo mu jëkk ma assemblée ma ni ko waaye yow Modou kañ laa la mës a woo euh, di la di la woo di la convoqué pour nga ñëw pour ñu ma dénk la liggéey nga may jëkk assemblée mu ni ma teer bi ma ni ko terre bi nga jël mu ni ma waaw waaw man daal terre bi lay jël bu ma amee commande wu bant damay ñëw commandé ko ñu livré ma ko waaye man dinaa dellu ba Tëngéej te may ubbi atelier ba balaa apprenti yee ñëw maa leen fay jëkk loolu ngay évaluer kom koom hmm. koom-koom du caaginu lu nit am rek def ko ci biiram lépp loo xamee ñoo ngi koy def muy yombal hmm. dem ak dikk muy yombal opérateur économique yi muy yobbal ñi nga xam ne dañuy liggéey ñuy gën a mën a gaaw a def seen liggéey xamal ni li ñu daan def ci benn at bu ñu ko defee ci ñetti weer jàppal ni seen productivité dafa multiplier wu par loolu mooy li nga xam ne léegi nag li nga wax ci dund bi mbir mu nekk da koy seet ak circonstance yi Sénégal dafa am feebar ci àdduna bi bu fi duggoon ñu jóge ci loolu génnaguñ ci sax mais mu amat beneen crise fële ci Ukraine ku nekk xam nga li mu doon xeex la jamono la boo xamee ne nii pëccëxoo la fële ci Europe hmm. euh, mais gis nga prix yi am senegal bu fekkoon ni gouvernement bi defu ci loxoom kenn du xam fan lay yegg gis nga euh, prix non dama la koy wax léegi hmm. gis nga euh, muy courant bi tey muy gasoil bi oto yi di sol ak essence bi weer wu dee gouvernement na ci def subvention boo xam ne mat na plus de quinze milliards weer wu dee mu subvention gis nga njëg yi ñuy wax tey am na fu mu toll foo xam ne su fekkoon ni gouvernement bi dindiwul yenn taxes yi bi ñu ko mujjee xayma ci li mu ci def quarante sept milliards la woon loo xamee ni ay recette la woon yu waroon dugg ci keesu état bi mu ne duma ko ci def parce que dama bëgg yombalal euh, askan wi te loola ba léegi ñu ngi ci. mooy 45 milliards yi. 45 milliards waaye 47 milliards. te tey ñoo ngi waat ci loolu ba nga xamee ni ñi ngi pa calculer waat 60 milliards yoo xam ne ni dañ ko war a dugal pour gën a jàppale pour kër dund bi ñu mën ko wàññi parce que am na loo xamee bu ñu ko bàyyi woon noonu ñu ne dañuy def la vérité des prix. yaakaar na bu xëyee sax Sénégal yi sax dootuñu mën a antal dañuy tox génn réew mi. d'accord léegi kon nag gouvernement bi nañu nangu ne lii taxawaayam te loolu tam day dellu si waat rek ci lima la doon wax. gis nga boo yore réew te yërëm réew ma yërëm ñay yewoo ci réew ma doo bëgg lu dis lu leen tegu moo tax président la république boo ko seetloo. jamono boo xamee ni nii am na lu génn ci àll ba ñëw te bu dalee ci kaw sénégalais yi diis ba kenn du ko antan da ngay daal di gis sur le champ ci conseil des ministres mu daal di jël ay dogo ay ay ay ay dogal wax ni nañu wàññi lii nañu def nii parce que bëgguma lenn loo xam ne ni day tegu ci askanu Sénégal loo xam ne day diis ba mu ëpp. léegi euh, président ay euh, euh, Aymérou Gningue fan yi jàll gis nañ syndicat yu bëree bëri doon doon grève waaye gis nañ tamit président Macky Sall ci conseil des ministre bële mu mu ne mu ni daal lu lu sëkkatal wala lu ërtal ministres yi ngir accord yi nga xam ne signé woon nañ ko fii ak mais lépp ñu daal di koy matérialiser mu mel ni daal loolu bëgg na see euh, xartànk tubayam waaye tamit dama gis ay syndicats yoo xam ne ñoom euh, dañoo jàppale bu njëkk amoon nañ benn interlocuteur lu si mel ni euh, premier ministre ba léegi faluñu ñu premier ministre ban jàngat nga si def. waaw li li ëpp solo xam nga premier ministre moom président koy fal bu ñu koy dindi tam président koy dindi ki nga xamee moom dañ lay fal di la dindi kay moom waxam amul solo ki ki waxam am solo dëgg-dëgg mooy président de la république nag. li mu wax looloo war a nekk dañu war a di sàmmoonte ak li ñuy wax ak nit ñi nga xam ne dañuy waxtaan ak ñoom ñu am ay jafe-jafe ñëw di waxtaan ak ñun suñu waxtaanee ak gouvernement bi ba pare ba ñu tënk dara gouvernement bi dafa war a respecter loolu ñoom itam li ñu waxanteeg gouvernement bi nañ ko respecté bu demee itam ba am lu dal suñu kaw loo xam ne dafa am doole comme crise boo xamee ni tey dafa ñëw am doole ñu ne kat nañu jël alal ji dugal ko léegi jàppale ko nit ñi nga xam seen dund bu ñu leen jàppalewul day gën a cher bu boobaa tam nañu woote waxtaan parce que waxtaan rek moo am solo te réewu Sénégal dama jàpp ni ressort bi nga xam ni ci lañu war a mën a sukkandiku ba réew mi ni ko mag ñi aare woon ñu continuer du ko aare noonu parce que ñun ñëpp nag dafa am loo xamee ni nii moom la ñuy laaj ëllëg mooy ni suñu bàyyi ak suñu maam yi doon def ba bàyyi ñu fii réew mu ne lumb boo xamee ni nit ñi lu mu métti métti dañuy toog di waxtaan est-ce que dinañ ko fi bàyyi suñuy doom bokk nag suñu responsabilité loolu nag moo war a tax bu fekkee ni jël nañu engagement nañuy waxtaan ak nit ñi parce que nit doyewuñ ko dara kenn du ko lekk kenn du ko def lenn lu dul jariñoo xelam ak di waxtaan ak moom di diisoo ak moom koo diisool mu xam ci li nga nekk man par exemple dafa mas a ñëw benn euh, syndicat bu ñuy wax syndicat SYTJUST moo doon ñu yore affaire auxiliaire de justice. Mhm. ñu am jafe-jafe ak mini greffier am jafe-jafe ma recevoir leen fii ci assemblée nationale fekk ma ci def intermédiation bi ñu ñëwee man leen li ngeen di wax nii état bi waxoon na leen ko mais loolu mënul nekk ma ne man leen xam nga lu tax mënul nekk ma ni ko loi bii ñu indi muy loi de finances rectificative bii li ma gis ñu inscrire ko ci budget ministère de la justice mu jëm ci yéen deux milliards la te wóor na ma ni amul fu ñuy mën a luxuse xaalis ba du nekk loola mais muy ay nit yoo xamee ni yu responsable lañ ñu ne comme loolu la nañu dem waxtaaniwaat ak ministère bi ak ñi nga xamee ñoom lañ ko séqal parce que loolu affaire gouvernement la du affaire parlement man booba dama ci doon waslu àq rek mais ba ñu demee waxtaan nañu ba jubóo lañ leen war a jox ñu jox leen ko la ci des ñu bàyyi ko ba keroog ñu koy programme ñu def président léeg-léeg tamit euh, yenn syndicat yi seen ministre de tutelle parfois euh, moo leen di bañ a recevoir wala moo leen di bañ a faale parfois aussi. non xam nga yooyu moom yooyu moom euh, ministre boo gis soo ñëwee ci moom bëgg waxtaan ak moom ci jàmm ak salaam xam nga euh, te amul leneen lu ci dugg yaakaar naa du am jafe waxuma la ministre ax mais nitu kese-kese boo ñëwee ni ko dama lay seet si parce que dafa am lu ñu bokk dafa am lu ñu seq te mën mënuñu ko séddoo te dañu war a waxtaan bu dee jàmm rek la wax dëgg yàlla nag waxtaan ma naa am kon amul kenn ku koy bañ c'est-à-dire que loo gis rek ñu koy wax xañ na am na lu ci suuf man nag du ma yegg ca yooyu parce que xaw ko hmm. waaye daal li ma jàpp mooy amul benn ministre boo xam ni am nga syndicat boo xam ne ma ngay yëngutu ca wàll wu ñu la dénk ñu toog ba yàgg ñooñu ñu bëgg laa gis waxtaan ak yow ngay tëj sa buntu naan du waxtaan ak ñoom. d'accord euh, jërëjëf euh, président ay Aymérou Gningue léegi nag euh, ñu daal di jàll ci beneen ponk ponk bi mooy li nga xam ne tey moom mooy parrainage bi. Euh, parenage bi ab euh, la boo xam ne euh, tey moom yow ni mbirum parrainage kenn du ko tudd fi ni saxal demul saxal demul si yow ndax bokk ñi fee di parrainage bi. loi parrainage bi fi ne nii juraat na coow gisoon nañ ne 2019 amutoon problème mais gis nañ tamit local yi indiwule noonu parrainage de élection législative yi ngeen indiwaat li nga xam ne mooy mooy parrainage bi lan moo tax loolu. waaw léeg-léeg d'abord da ngay man indiwoo fi parrainage. Euh, xadar xam nga parrainage yàgg na am dañ ko doon yamale ci ñuy wax ne ay candidats indépendants lañu. mais par mais defal naa rek parti waaw dama ko réforme bi ci bokk naa ci ko réformer. parce que parrainage dafa nekk seggukaay boo xamee ni amul benn réew bu sérieux bu ko amul dul def xam nga lu tax ma la koy wax. Hmm. xam nga dañu dem élection législative 2017. Hmm. boo ko fàttalikoo. Ah. ñu am 47 listes 47 listes hmm. conseil constitutionnel moo wax mujj wax joxe benn dogal hmm. pour wax ni électeur bi mu duggee daal mën na tànn rek juróomi carte hmm. parce que loolu déjà dina du ñu xam kan la bëgg a voter alors que loi bi dafa di booy jëwee da nga war a jël bulletin yépp ku loolu lu muy wone gis nga euh, suma xarit ab Fall da ko doon wax barki def dafay wax ni moom bi muy créer partem fàtte naa sax ban at la wax nee na moo doon quatorzième parti nee na 1981 bi ñu defee ouverture ubbi parti ba moom bi muy créé parti am en 1994 nee na fukki parti ak ñeent moo doon quatorzième léegi xamu ñaata parti fi nekk mat nañu trois cent soixante dix parti ci biir Sénégal yow yow nit nga man nit laa ñuy waxtaan est-ce que jàpp nga ni loolu jàll na est-ce que ñooñu di wax ñëpp amuñu fu ñu mën a dajaloo man waxuma ñu ñëw ci ñun boole rek nekk benn parti kon nag gis nga comme dem nañu ba xam ni ay coalition de parti rek moo fi mën a ànd hmm. waaye waay nañu juboo wax ni coalition de parti yi ñooy dem élection bu boobaa ku ñu jox réew mi nga nga nga dem jël réew mi ku ñu fal député nga dem ñu fal député nga dem mais nag réew boo xamee ni keroog bi nga xamee ni 47 listes yi ñëw na dañu def benn chronomètre. Hmm. ni ñu koy waxe ñu ne ah su fekkee dañu chronométré ku nekk dugg jël quarante sept bulletins. Hmm. dugg ci urne bi génn. bu ñu xëyee suba ba ngoon lii mën a wote du passé cent person ñu ne a ah, kon de loolu day yàq démocratie. ok ah def ngeen kii boobu. oui ah, ah, ay ñu da ko def ay ay ay ay ay si ay association sax ñoo ko def. Hmm. chronomètre xam ko. kon nag boo bañee sa yàqu. da ngay fexe ba jël ay seggukaay yoo xamee ni seggukaay yooyu mooy mën a tax nit ki bala mu naan dama bëgg a nekk nangam wax dëgg yàlla mu am ñu ko pare ne te loolu am na fépp waaw mais est-ce que opposition bi dañuy jàpp ne yéen léeg-léeg dafa am lu ngeen ciy rax wàllum politique xam nga nag parrainage moom pare rek opposition bi nga xam ah, xam nga France dégg dégg nga France am na ay candidats yoo xamee ni mënuñu woon am parrain parce que amuñu ay mair yu leen parrainé wala ay conseils municipaux yu leen parrainé nga dégg ay nit yi jóg naan leen ku bu bu leen dañ leen di ñaan ngeen parele leen même bu ngeen bokkul ak ñoom parti parce que lu raisonnable lépp loo xam ni dafa xelu bu ko nit déggee dina ko xam mais yow Abdou Khader yow muy wax ak man yow miy wax ak man ak sénégalais yi ñuy déglu mais xam nañu ne ñeent fukki liste juróom-ñaar yi ba ñu demee xam na ñaata ci génn. Mm-hmm. ñaata ci am ay député mm-hmm. juróom-ñett. mais non pour woon la de. d'accord naa président pour woon la de li nga wax d'accord naa ci. mais li nga wax nii non opposition bi sax. opposition bi sax ñoom boo xoolee am ñu si bari ba ñu ñu parrainage mais dañuy jàpp rek ne yéen ségg gi ngeen di def. Hmm. léeg-léeg da ngeen si boole loo xam ne. Hmm. maanaam da si mën si gàllankoor ay candidats loolu. non non non gis naa gis naa ni d'ailleurs direction générale des élections bi nga xam administration rek la woote na. pour wax naka la ñuy naka la ñuy def je crois que ña war a wuyu ji wuyu ji ne xam nga man nekkuma ci yooyu. parce que parti bu nekk am nga ñu la fay représenté. d'accord naa ni ndax nit ñi sax seen xel a ngi gën a ubbeeku ñu xam ni gis nga loi xam nga man lan moo ma fi teg loi daal xam nga mooy lan mooy buñ ko xasee wote ba président promulgué ko fee mu toog mooy jëf jëf la tudd dañ ko war a jëf. gis nga lii xew man ci élection locale bi sax. Hmm. mooy ñu ne nañ ko bàyyi ci euh, élection euh, locale bi mais élection mairie. Mm-hmm. déedéet parce que loi da nga def appliquer ko wala nga ñàkk ko def bul ko appliquer man loolu mooy sama mooy suma position. léegi nag am na ñoo xamee li ñu xalaat mooy comme ñoom ñëpp waxtaan nañu ba juboo nañ ci dara maanaam daal waxtaan nañu. ay seen biir ñi ko seqoon ba ñu bon pour élection locale yi daal nañ ko bañ a def ñoom ñu bañ ko def mais man sama coobare bopp ci ni may gisee ak ci li ma gis ak ci li ma xalaat mooy loi moom bu fi nekkee rek nañ ko am. mais léegi euh, Aymérou Gningue honorable député euh, maître Abdoulaye Tine. Euh, benn avocat la yor na parti politique 2019 après élection présidentielle yi dafa portoon plainte état bu Sénégal ci CEDEAO CEDEAO joxoon Sénégal euh, àpp boo xam ne toll na si juróom benn weer ngir ma xoolaat li nga xam ne mooy parrainage bi euh, loolu lan moo ci sa xalaat waaw sama xalaat mooy xam na réew bu nekk gis nga suñu kuréel yi ñu am dinañu leen di laaj parce que dañuy am ay cours de justice yu leen di laaj seen xalaat mais xalaat yooyu ñuy joxe mënul ñëw nërmeel mm-hmm. li nga xamee ñun dañ ko juboo di ko def suñu loi réew moo tax ma lay wax la loi sur le parrainage la mooy nga xamee ñoo ngi ko wate woon le 19 avril 2018 boobu moo nekk en vigueur au Sénégal képp koo xamee defoo ko danga jalgati yoon kon nag euh, li CEDEAO di xalaat euh, bu fekkoon ni dafa nekk loo xam ni Sénégal rek ko def ci àdduna bi ñu ne waa lii man dama gis dama dégg lu keroog ci ci benn émission France benn euh, responsable politique France di wax nii waaye war nañu def comme Sénégal au lieu ñu def léegi parrainage rek par les élus nañu def léegi le parrainage citoyen wala ñu boole ko jël lii élu lii citoyen pour mën a bañ a bloquer ñenn ñi. Hmm. waaye yow ñun ñu am loo xam ne ay nit a muy ñoo ñu jëkk ci démocratie nee nañu. di ko jéggaani si ci ñun. waay waay waay li ñu am dañ ko sàmm waay te fonk ko. waaw mais leen di faral di wax naan leen euh, euh, CEDEAO lu mu sant état bu Sénégal état bu Sénégal dafay lànk te li nga xam ne mooy traité internationaux yi ak convention yi Sénégal moom moo ko signé. waay waay waay mais xam nga euh, suñu constitution moom. dara dafa dafa am solo. Hmm. li nga xamee ni ñun ñoo ko tënk ci suñu réew. di ko doxal déedéet am na traité yi féete nañu kaw euh, yooyu boo de xoolee ci ni ñuy a ni ñuy hiérarchiser loi yi waaye lii du traité avis la rek yu ay juriste joxe. xam nga avis yu ay juriste joxe bokkul loo xam ne dañ ko jël dogal ni par force xam nga bu amee directive UEMOA. Hmm. boo xamee dafay dal ci Sénégal. Hmm. nii nañu def euh, directive bi dañ ko def parce que dafa war a dugg ci loi wu réew yëpp hmm. juróom-ñetti réew yi ko bokk Sénégal da koy jël dugal ko ci loi interne ci dispositif euh, normatif waaye yii ay avis la ay cour buy joxe ay avis dafa nga ni loolu am réew mën naa sukkandiku ci loolu pour def déedéet xam nga nit ah. dafay xool fi mu jëm ak li mu def ak fi mu bëgg a jëm man tey képp d'accord naa waxtaan ak ku nekk nga ni ma déet parrainage bi dama ko bañ ndax nangam bu fekkoon ni dañ ko gis nga bi ñu koy def dañoo wër ci dëkk yi mboobu du woon man nag parce que ministre bi nga xamee moo ko yoroon à l'époque je que ministre Aly boo fi nekk dégg naa ko mu dem ci ay mission yu bëri pour xool fu nekk naka la ñuy defee parenage bi ak naka la ñu koy lijjante du lu ñu inventé loo xamee ni la dafa nekk loo xam ne dafa ñëw renforcer suñu démocratie parce que nit du ku lacc-lacc rek jóg surtout ci àdduna bi ñu nekk tey nga xamee ni danger yi dafa bari nit ñi ku nekk yaa ngi jóg ak sa ndel xamoo fan nga koy gas xamoo nooy def di indi ay musiba ci réew yi te yàlla dimbali ñu suñu réew mi yàlla defandi fi jàmm nañu ottandiku ñi nga xamee dañuy ñëw di pousse ay nit pour ñuy def pour yàq rek. am na ñoo xam ne sax mu xam nañu ñu am mais dañuy def pour loola bañ a am xam nga 47 liste bu ñu ko doon def. comme ni ma la ko waxee ñu dem ba ngoon élection yi mënut a sotti ñu naan waaw euh, bureau bu nekk 100 nit ñoo fa wote alors que c'est personnes lañ fa bindoon wala 300 personnes loolu day jur musiba te réew boo ko yoree doo bëgg musiba di fa am. dañuy bëgg lépp lu ñuy def mu mën a sotti nit ñi di tànn ci jàmm euh, mbokk yi yéen a ngi déglu réew mi FM euh, tey ñu invité euh, président ay Aymérou Gningue moom moo jiite groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar maire bu Médina Ndakhar mais président CEDEAO tamit am na leneen lu mu waxaat jox na ab ñetti weer Sénégal ngir mu xoolaat li nga xam ne mooy arrêté Ousmane Ngom xam ne arrêté la boo xam ne ñi nga xam ne ñooy xeex lépp lu jëm ci àq ak yelleef doomu Euh, Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak euh, Amnesty International section Sénégal ñoom dañu porté woon plainte état Sénégal ci CEDEAO ndax dañoo jàpp ne arrêté Ousmane Ngom euh, dafay salfaañe li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama léegi dogal boobu CEDEAO jël lan moo ci sa xalaat waaw damay wax ci arrêté Ousmane Ngom dafa wax bi ñu bàyyi manifestation yi ci biir ci biir ci biir ville bi mooy ci plateau bi mm-hmm. alors dama lay jox benn exemple dañu ci waxtaan parce que man dama bëgg damay seet toujours di comparer euh, dafa am ci deux mille dix neuf mouvement bu ñu tuddee lu mouvement des gilets jaunes ci France gars yi di def manifestation nag te am na ay samba boy ci dugg dem ba jël ay ndaraan di dajji ay buntu ministère image yi ñëpp Sénégalais yëpp gis nañ ko ñoo xëy xëy. ñu laajaat di dañuy manifester dañuy manifester ñu encadré daal di non manifestation bi du yegg si fii mu mënul yegg ba tuur Eiffel mënul def fii mënul def fii mënul def fii loolu mooy arrêté Ousmane Ngom réew bi sa veut dire que Ousmane Ngom dafa dafa am xalaat ak avance xam nga manifester du yàq. su fekkoon nit ñi dañuy ñëw rek pour manifester xam nga man mos naa fi wax ni dinaa dinaa def benn euh, proposition de loi pour tere manifestation àjjuma. parce que ma daan gis gars yi ajjuma rek la ñu manifester. Mm. ma ni waay ñun suñu ajjuma ji nga xam ne moom lañu am di julli ji juma. Mm. comme tey. Mm. Euh, euh, di julli ji juma. waaw man ma dem julli ji juma ah ay ay nit génn daal di àndaaleeg ful bi def seen ma mais bu ñu bëggee manifester. dañu xaar ba samedi ci suba ñu def ko. mais lan mooy problème bi xanaa du da bëgg a wane sa sa naqar rek. kon nag manifestation suñ ko encadré woon. ay nit yu civilisé yor ko. ay sàmba booy bañ ci dugg ñun nga xam ne dañuy dox rek dem seen yoon. Hmm. kon kenn du ko mais nit nguur day foogu. mais li la CEDEAO sant wax na. mais CEDEAO déggoo li ma la wax. ay avis la ñuy joxe ay avis la ñuy joxe xam nga lii arrêté la du sax loi arrêté la boo xamee ministre ko jox bis boo xamee ni Sénégal dem na ba gis ni maturité. hommes yi ni euh, politique yi toll na foo xamee ni nii war nañoo mën a circuler diggante Sandaga ak euh, palais de la République bu boobaa ñu joxe ko. d' accord léegi euh, président Aymérou Gningue ñi nga xam ne ñooy collectif ànd sàmm jikko yi am na benn proposition de loi bu ñu bëggoon ñu criminaliser borom ñaari tur yi mm-hmm. bi mu ñëwee assemblée nationale nag ñoom nee nañu dafa am ay député yoo xam ne ñoom ñoo ko gantal bureau bi mm-hmm. yow yaay jiite groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar lan moo ci sa xalaat. waaw loolu moom dinaa la ci wax lu leer. xam nga euh, loi soo koy defee dafay fekk loi amul mais dañu dañu am loi ba pare xam nga lii ngay wax borom ñaari tur yi euh, loi bi nga xamee ni nii moo leen di condamné mm-hmm. ñoo ngi ko voté woon depuis 1965 te ku fi justice jàpp rek ci loola ci loi boobu la la wote xam nga lu ñu ma waroon laaj mm-hmm. waaye ñan lañ fi jàpp ci loi bi xam nga bu fekkoon ni loi amul duñ ci jàpp kenn. li loi am. moo tax ñu am ñu ciy jàpp tëj leen. ba condamné leen waaw kon ñoom lu leen tax a jóg. ñu yokk daan yi. déedéet bu dee yokk daan yi kay doo changer loi dañuy seet rek naka lañuy ñuy aménager waat yi. Hmm. waaye ñëw rek daal ni wala nañu def nañu criminaliser. nañu est-ce que ñoo juum ñoom seen communication rek. dama déedéet dafa dama ne dama ne. lu ni fàgg kenn du ko jeex man dama ne loi baa ngi fii mi ngi fii nekk fii ñoo ngi ciy liggéey ñoo ngi ciy condamné ña jóg leen tax a jóg ak la tudd ni sàmm jikko la mm-hmm. bu ëllëgee nit ñi nañ ko xam parce que dafa am ay politiciens yoo xam ni dañuy laqatu wala ñu am yeneen objectif yoo xam ne duñu ko wax di jaati nësaxal xelu nit ñi te dama waxoon ni dafa am ñeent yoo xam ni réewu senegaal ruwam antanu ko ruwu Sénégal antanul ñuy jiñante naan maa la gën gënuma la maa la gën a nekk jullit yow maa la gën a nekk catholique maa la gën a gëm yàlla ruu suñu ruu réew antanu ko boddante xeet suñu ruu réew antanu ko boddante tariixa suñu ruu réew ruux gi antanu ko kon nit ñi nañu wottandiku di jëfandikoo yoo xame ni la ca biir ñoom seen njariñ la mais du njariñu réew. kon da nga jàpp ne collectif bi dafa am euh, wàllu politique bu si làqu. ah oui bien sûr loolu dina leer. xam nga nit bu demee buy demee di wax ba yàgg mu naan damay nekk candidat dama bëgg a nekk député waaye ñoom bu ñu bëggee nekk député na ñu wuti parti wala ñu wuti coalition te nekk ko loolu gën. waaye nag di jaar ci ay wax yoo xamee ni xam nga euh, toog ba yàgg. ngay tuumaal ay nit wala di leen wax eh, eh, tuuma alalu alalu gor la kàccoor moomu ko waaw moo tax nit ñi nañu gën a nañu gën a yem quoi parce que nit ñi tam toog rek defe ni ñoo gën a nekk jullit nit ñi wala ñoo gën a eh, set nit ñi waay waay waay yàlla dafa bind guddi bind bëccëg te lii mu ci bëgg mooy sutura rek. Euh, président Aymérou Gningue euh, si seen benn collègue di Ousmane Sonko fa yi dafa def déclaration euh, ne woon du wuy ji ci du dem di respecter li nga xam ne mooy contrôle judiciaire bi. Mm-hmm. mais dernier moment bi tamit defaat na déclaration nee na dina dem signé ko ndax gis nañ dossier bi ma ngi avancé yow lan moo ci sa xalaat. dara bàyyi justice mu def liggéeyam rek. man daal li ma gëm mooy. Mm-hmm. damay wote ay loi justice mooy def loi bi li may wax daal foofu. mooy man ku fonk magistrat la ku gëm justice su Sénégal la parce que buñ ma tooñee du ma fajal sama bopp damay porter plainte woo juge justice nag dafa nekk métier boo xam ne bu la condamné nga ne dañoo jeng bu la joxee dëgg nga ne ñoo fi gën waaye daal justice moom institution la boo xam ni réew boo xamee ni nërmeel nga ko jàppal ngis bu doon ñaari tànk nga am damm nga benn tànk bi moo tax man dama respecter justice man yi ci sama wàllu bopp bis bu ma juge bi soxlaa woo ma ak fu ma mën a ne lu ma doon def dinaa ko bàyyi dem wuy ji ko te bis buñ ma tuumaalee dara ñu woo ma ci tribunal may jëkk yàkkamte ñépp pour dem dindi tuuma ji waaye man duma làqu ci ginnaaw lenn pour bañ a leeral sama bopp da de man ja waxuma ci man damay wax rek te waxuma man loolu duma ci commentaire dama wax ni rek ku ñu woo demal wuy ji boobu conseil rek laa mën a def <laughs> léegi président Aymérou Gningue euh, dernière laaj bi mooy législative yi ma ngi dëgg ma local yi nag moom euh, xawoon ngeen a mel lu jéng <laughs> mais législative yi est-ce que euh, jàpp nga ne dina am benn benn consensus benn déggoo bu am ci seeni investiture yéen waa Benno Bokk Yaakaar loolu la ñu bëgg ci la ñuy liggéey itam. mais du euh, fan yi rek dajale naa député yi nga xam ne ñoo bokk benn bokk yaakaar yëpp d'ailleurs pour ñu def parrainage loolu nag damay profité wax la ko. Hmm. Euh, député yëpp juboo nañu ci ni dañu war a def parrainage député bu nekk dina def juróomi téeméeri parrainage buñ ko boolee muy juróom-benn fukki junniy parrainage ak juróom-benn. ñu jéppal ko. suñu président c'est la première fois. parce que loi parrainage bi ngi soog a ñëw léegi nag incha allah rabbi man xawma lan mooy am waaye sama yéene mën naa la ko yéene ki nga xam ne mooy suñu kilifa tam nekk président benn bokk yaakaar mën naa la ko parce que da ko wax ba pare dama ci dama ciy baamtuwaat mooy fexe ba ñëpp nekk benn ànd ñu fàtte xëccoo yi ak wuute yi ak pàccoo bi jéem a nekk benn ndax itam ñëpp mënuñu nekk député lu mu bëri bëri bëri assemblée bi téeméeri député ak juróom benn fukk ak juróom bu fekkee changé wuñu loi bi loolu rek moo fi nekk kon nag wax dëgg yàlla li ñu mën mooy fexe nekk benn ànd parce que président Moustapha Niass dafay wax toujours ñun daal am nañu gaal gu dëgër ah ki nga xamee mooy suñu capitaine gaal tam ku mën a joow la ku mën a diriger ay nit la li ñu desee mooy ñuy ndox joowandoo boobu rek fi la yi fi nekk kon nag maa ngi ñaan ñëpp ñun ñëpp ñu ànd joowandoo parce que bu ñu joowandoo fi ñu bëgg gaal gi yegg fa dina fa yegg. jërëjëf euh, président ñoo lay sant di la gërëm. waaw eh, Abdou Khadir maa ngi lay sant man tam di la gërëm di kontaan ci waxtaan bi. Mm-hmm. Eh, di ñaan yàlla yàlla defal la sutura. te itam rajo bi yàlla barkeel ko. jërëjëf eh, président Aymérou Gningue moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mooy maire bu Mérina Ndakhar ñu koy sant di ko gërëm mbokk li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadir Seck samedi bu jot 15h jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi ngeen jëf.